depuis euh, donc sa cellule euh, moom rek euh, Ousmane Sonko daal nay euh, bind ab benn bataaxal euh, ñu gis ko publication ci page Facebook am moom Ousmane Sonko nag bu ñu ñëwaatee ba tey ci bile publication bi nga xamante ni def na ko ginnaaw ndogalu juge bi nekk fële sa diwaanu tribunal hors classe bu Ndakaaru Ousmane Sonko mooy wax gloire à l'unique honneur à mes dévoués, euh, brillants, désintéressés et loyaux avocats. Reconnaissance infinie à ce formidable peuple sénégalais. Remerciements à tous nos soutiens africains et étrangers. Que la paix et la bénédiction divine inondent notre pays. moom leader bu Pastef fi sax daanaka euh, dafa rek daal di jot rek euh, poste ab benn bataaxal boo xamante ni euh, ginnaaw nag ba juge bi rek daal di wadde fële sa tribunal bu Ndakaaru moom Ousmane Sonko njiitalu Pastef fi sax daanaka mu ngi rek gërëm yàlla waaye nag daal ne ko gërëm ko bu baax a baax ginnaaw sax bay rek gërëmaat ñi nga xamante rek ñoom ñoo di ay avocat wam ba leen di tagg ba daal di leen bàkk di wax ay brillant avocat maanaam ay avocat yi nga xamante xamante ni ànd nañ ak xarañte si euh, liggéey bi nga xamante ni euh, def nañ ko bàyyi lépp euh, ngir mën koo xeexal daanaka loolee sax moo waral son ko daal di jàpp ne daal ab reconnaissance boo xamante ni rek bu bu amul app la waaye nag ak li nga xam rek moom moo di mbégte boo xamante ni daal peuple sénégalais am nañ ko si bile donc bile décision bi nga xamante ni juge bi jël na ko ndiki tey jii si donc tribunal bu Ndakaaru ba tey euh, njiitalu Pastef Ousmane Sonko euh, mooy rek daal di wax euh, si bataaxal bi nga xamante ni moom def na ko mu ngi rek daal di remercier di sant ñi nga xamante ni ñoom ñoo di nag ñi ko doon rek daal di xeexal moo xam ñu nekk si réew mi waaye ñi nekk aussi si Afrique sowu jant ñoom ñëpp daanaka Ousmane Sonko mu ngi leen di rek daal di gërëm bu baax baax. Ah, fi mu ko nag daanale moom njiitalu Pastef bi le mu ngi rekk daal di euh, wax ne euh, mu ngi ñaan daal jàmm ji Euh, gën a rek daal di euh, sax bu baax a baax euh, fii si réew mi ndaxte dayo bi nga xamante ni bés bi lee am na ko dafa nekk loo xamante ni jàpp ne daal ab jàmm dong la war a indi fi nga xamante rek moom moo di si réew mi donc lii moo nekk li nga xamante ni moom mooy donc kàddu yu njiitalu Pastef bi di moom mi nga xamante ni rek dafa rek daal di ñëwaat si boobu boobulee nag jugement bi nga xamante ni ji le verdict bi daal di wadd ba tax na daf si dikk ak ñun euh, gloire à Dieu euh, l'unique euh, honneur à mes dévoués brillants désintéressés et loyaux avocats reconnaissance infinie à ce formidable peuple sénégalais moom Ousmane Sonko ba tey rek ay kàddoom di rek daal di waxaat ne remerciement à tous nos soutiens africains et étrangers que la paix et la bénédiction divine inondent notre pays focus 2024 Sonko président 2024 lii moom moo di ab bataaxal euh, bi nga xamante ni rek moom njiitalu Pastef bi lee di Ousmane Sonko euh, daal na koy rek daal di amal ginnaaw nag euh, ba ñu ko rek daal di réintégré si bile donc list électorale bi loole nag si fàttali ni ginnaaw bu ju Sabassy Faye moom mi nga xamante ni rek mbokk yi moo ko rek daal di dugaloon waaye bi ñu demee nag fële sa duwaanu cassation nag ñu daal di koy euh, renvoyé waat fii si diwaanu euh, donc euh, tribunal hors classe bu Ndakaaru tey ji sax la juge bi rek daal di dëggal atte bi ñu atte woon Ousmane Sonko fële sa diwaanu Sikicoor ñu daal di koy dugalaat ci bile nag liste électorale kaddu maître El Hadji Diouf moom dafay ñëw si li nga xamante ni mbokk ñi bàyyi xel waxtu yi nekk moom moo di ab donc appel boo xamante ni euh, ñoom avocat yu Sénégal yi daal daan ñu ko fas yéene amal euh, ngir ñu mën a dem cassation au niveau euh, fële sa diwaanu cour suprême ndaxte jàpp ne mbir yi daal jeexagul des na li nga xam te moom moo di beneen partie bi ngir ñu attewaat ko fële sa diwaanu cour suprême